هيا على الصلاة أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وها نحن قد احتفلنا يوم أمس بيوم من أيام الله يوم نتذكر فيه صراعًا ما بين الحق والباطل يوم إخراج العبد الخديم من بين أهله ووطنه إلى مجاهل أفريقيا لا لشيء إلا أن يقول ربنا الله قال ظلمني من أخرجوني من ديور بغير حق ردني مع الخيور ويقول في هذا السدد أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد لإني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن الشاهد أيها الإخوة إنه كان يوم حزن ووجوم لمريديه لافتراقهم معه ولكنه كان يعتبره يوم نصر وفتح مبين ولذلك أمر الاحتفال والشكر بيوم الخروج شكرا لله تبارك وتعالى قال وأمس ينسيني بيومي وبغد وقال في مكان آخر تعبيا محا بأجر صبري وبجزاء شكري وفاز زبري ولأن كل يوم تطلع عليه شمس يأتيه الشكور بمواهب لا تتناهى لأن الله تبارك وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب أيها الإخوة المسلمون ولكن أيها الإخوة المسلمون حين نتذكر هذا اليوم من أيام الله يجب أن لا نكتفي بمجرد سرد القصص والأحداث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 يا رب إن أعطيتني فالشكر وإن منعت فرضا وصبر فالمنع والعطاء قطعا منك لا من سواك فرضيت عنك وكان يقول أيضا في قصيدته أسير رضيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير ومن هذه الدروس أيها الإخوة الثبات على المبدأ ورفض عروض المساومة والتهديد فقد رفض منصب الولاية والسلطان واختار العلم والدين فقال قالوا ليركن لأبواب السلاطين تحس جوائز تغني كل ما حين فقلت حسبي يا ربي واكتفيت به ولست راضيا غير العلم والدين فقال يقول في قصيدة أسير أيضا مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لغير الله عوض مسير ومن هذه الدروس والعبر أيها الإخوة الثقة بالله والإيمان بالنصر لقوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أيها الإخوة هل يضاهى أو يقارن انتصار الإسلام بهذا المسجد الشامخ بحسنه وغضب حبيبه يليسي في جابون عندما نصب أربعة عيدان في مصلاه ببيته بباب بيته ليصرف بها المارين عن موضع صلاته مما أثار غضب الحاكم ولم يتمالك من نفسه فنقضها وقلعها ورمى بها مع التهديد بأنه لا صلاة هنا ولا إسلام إن هذا المسجد وغيره تحقيق لوعد الله للمؤمنين بقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وهذا المسجد وغيره دليل قاطع على ان العاقبه للمتقين وان نصر الله قريب لمن اخلص النيه وعمل وعمل لما يرضي رب العالمين بوكي جلدي غيناو بني سانت يالا دي جلتي يونت بي صلى الله عليه وسلم دي سيرنا يالا رك موي محمد صلى الله عليه وسلم موي يونت بيغا خامني موم يوني te ku bëgg a jaamooti yàlla jaamu gu ñu nangu fokk nga jaamoo ci diini jooju noo ngi seede di tuub di xam ne suñuy bàkkaar li nit ñi gis la nëbb moo ko ëpp moom suñu boroom moom ni suturaal ba kenn du gis su suñu ayib yi biir la lu tuuti la ñuy gis ci suñu ayib kon nag ñu ngi koy ñaan mu jégal nuyu feeñ ak ñu nëbb yépp mbokk yi maa ngi leen di dénk ginnaaw bi ma dem dénkee suñu bopp ragal yàlla ndax nag ëllëg amut lu nit di yóbbu foofa lu gën ragal yàlla ginnaaw loolu nag dafa am aaya bu tedd boo xam ne sunu borom daf cee wax lu am solo ndax dafa wax ne man maa yónni woon yonante bu ñuy wax Moussa li ma ko digaloon mooy dama bëgg sëw saw saw nit nga génne leen ci lëndam yóbbu leen ci leer waaye dolli ci nag ne foo toll na nga leen di fàttali bi bisu yàlla yi na nga leen di fàttali bi bisu yàlla yi ndax fàttaliku bisu yàlla ñaar la lay dolli ñaar lay dolli ñi nga xam ne kenn benn ngay sant wala ngay muñ benn nga nekk ci barabu sant wala nga nekk ci barabu muñ suñ la fàttalee lu baax lu baax la nit ña doon def démb ak la leen ci fekk ci aw yiw su ko defee loola dana la jàngal bépp coono bu la dal nga muñ ko waaye lépp loo xam ne it yàlla xéewal na ko te amoon kum ko xéewaloon am na koo xam ne def na ko fa neex yàlla am koo xam ne def na ko safaan ba su ko defee nag sant yàlla ci lim la defal mooy lim la defal nga di ko def ci fi ko mbokk yi xam ngeen ne démb ñu ngi doon fàttaliku benn bis ci bisi yàlla yi ndax mooy bis bi nga xam ne diggante dëgg ak safaan ba ñoo doon xëccoo dëgg ne maay taxaw safaan ne doo fi taxawe mooy bis bi nga xam ne ci lañ génnee woon sunu jàmbaar ji jàmbaari lislaam ji ñëpp bokk muy cheikhul xadim génne ko tàggale kook njabootam tàggale ko kook réewam tàggale kook taalibe yi ko bëggoon lool te benn baat rek moo tax ñu tàggale ko moom te mooy sama bu yàlla mooy sama buur kenn yóbbuwu ko nee na nee na ñi ma yóbboon dañ maa tooñ waaye xam naa ne buur bi nga xam ne moo dogal ci man loolu maa ngi koy ñaan su may dellu naa delluwaale yiwu fees dell mbokk yi sëriñ Touba moo waxal boppam ne da ngeen maa génne te li tax ngeen génne ma mooy dangeen ngeen ne jaamu yàlla laa dangeen ngeen ne damay jihaad loolu ngeen wax nag dëgg la jaamu yàlla laa te du ma masa dañ di ko doon waaye itam eh, damay jihaad di liggéeyal islaam ak lu ma ca mën a fekk loolu moom duma ma ci masa dañ te duma ma ci masa génn mbokk yi bis bi ñu doon fàttaliku démb bis la bu metti la woon bisu tiis la woon ndax murit yépp dañoo maase woon jaaxle ndax kiñ ñu gën a bëgg ginnaaw yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam moom lañ leen tàggalee ak moom tàgg tas ay daaroom tàggale ko ki njabootam li tax muy fàttaliku bis boobu nag nee na moom da ciy sant yàlla da ciy sant yàlla ndax bis boobu su amutoon li mu am ci yàlla du ko ci am loolu néewaa nañu di ko gis ñu bis bi ñu gañee la ñuy di ñu amee ndam lañuy ñuy sa sant yàlla waaye moom nag dafa tànn bis bi ko yàlla tegee coono ndax nee na bis boobu moo tax mu mën a am ndam moo tax mu ne yàlla mi ma tegoon coono boobu dey faye na ma sama tey ju nekk mooy gàcc sama sama tey mooy gàcceel démb waaye sama ëllëg mooy gàcceel sama tey daf may fàtteloo tam sama tey coono bu ma masoon am démb fàtte naa ko ndax tey ak ëllëg daal di wax ne sama coono jeex na takk ndax li ko waral mooy bi ma yàlla tegee muñ naa bi ma joxee xéewal sant naa moo tax fu mu toll daf may jóoral ndax damay jox yoolub muñ di ma jox yoolub yoolub sant yàlla bokk yi suñuy fàttaliku bis bu mel nii li ci gën a am solo nag fàttali am na solo tudd yàlla ji ñu doon def démb berne yi ñu doon def yépp ngir sant yàlla am na solo waaye li ñun ñu teew fii ak ñi fi teewul ñépp nag li am solo mooy yan bind lañ mën a jële ci xew-xew bi ba mu mën noo jariñ ci su diggan suñu suñu borom ak sunu diine loolu moo am solo mbokk bind bi ci jëkk mooy nañ ñëpp maase xam ne yoonu yàlla ak wut ngërëmul yàlla yombul amul kenn koo xam ne da nga wax ne damaa jox sama bopp sama borom moom la moom laay liggéeyal ci moom laa gëm lu dul ne dafa la teggi natt ndax nag suma borom moo ko waxal boppam ndax nee na nit ñi bu yaakaar ne nag suñu nee gëm naa dama leen di bàyyi noonu fokk ma teg leen fitna fitna seet ba xam ndax li ñu wax wér na wala déet. yemul foofu sax nee na yonant yonant bi am na ab yonant boo xam ne dama ko teg fitna moog ñi mu àndaloon ñu jaaxle wéet tumuraanke ba mujj nañu ne ah ana yàlla nag ana yàlla ak ndimbalam yu ab yonant moo wax loolu nit nit nit kese waxu ko ab yonant moo mujj wax ne ana yàlla ak ndimbalam mu ne booba nag ma daal leen di wax ah yàllaa ngi ñëw nag loolu aaya alxuraan la bu boo xam ne day wane rek ne ku bëgg son ku bëgg am ngërëmu yàlla na nga xam ne da nga am ay jafe-jafe yu jeex loolu moo tax sëriñ Touba radiyallahu anhu daan wax ne lu ngeen mën a gis ci luy niru xéewal na ngeen xam ne ba ma ko daataan jot de coono bu nekk dat na daj naa ci kon coono mënta ñàkk ci ku bëgg a sóobu yoonu yàlla kon képp koo xam ne jàpp nga ne bëgg ngaa defal yàlla te jàpp ne dara du la ca fekk ci fitna ak coono yaa ngi nax sa bopp ndax yàlla moom li mu wax leer na bi ci tegee bokk yi mooy ñu xam ne su la yàlla tegee nattu nag amul benn bunt bu dul muñ ak nangul li yàlla dogal ci yow loolu itam bind la bu ñu war a jàng ci Serigne Touba radiyallahu ak démb bis boobu démb ndax yàlla bi mu tegee nattu bi mu teg xaadimu rasul tey diine rekk tax da ko muñ nangu ko yemul foofu sax daa mujj wax ne yow sunu borom dey soo ma joxee ma sant la ci lu mu mën a doon soo ma xañee ma boole nangu ak di ak sant ma boole gërëm looloo la ak di sant ndax xam naa ne amul ku mën a joxe ku dul yow kenn mënu jox ku dul yow te kenn mënu xañ ku dul yow kon nag li may def rek mooy gërëm la te sant la ndax lu ma am rek yaa ma ko jox te mën naa am te te yowuma ko sax kon te loo ma teg ci nattu itam damay xam ne da ngaa bëgg ma ma jariñu danga maa bëgg a fay rek. bokk yi bokk na ci tomb yi mooy ku bëgg a woote ci yoonu yàlla fokk nga am pas-pas dara bañ laa génn ci li nga nekk suñ la dee xupp ak suñ la dee xëpp nga yemale suñ la dee jox lu neex ngir nga war ginnaaw njubug yàlla gi wala ñu di la xupp di la teg lu metti yooyu yëpp nga war a yemale da ngaa war a sax taxaw fi nga nekk dara bañ la fa jëlee loolu moo tax sëriñ bi teel ko teel koo wane radiyallahu an teel naa wane lu mel noonu nee na am na ay poste buur poste yoo xam ne ci wetu buur la woon am njariñ lool am daraja lool waaye bañ ma ko waxee dama ko gantal ne man dey man maa tànn féeteeg yàlla ak liggéeyal diine ji nee na loolu liggéeyal xam-xam ak diine daal moom laa def muy sama sama mbir leneen luñ ma gaaral bàyyi naa loola jàpp ci lii bokk yi loolu taxul mu yomb lool moo tax mu ne boo ma gisee may dox dana la wóor ne ci yàlla rek laa jëm te ci te ci sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam laay teg sama tànk duma ko wàcc mukk amul feneen fu may dox jëm bokk yi bokk na ci bind bi nga xam ne nag bokk na ci bind bi nga xam ne war nañ koo jariñoo war koo bàyyi xel ci bis bi ñu doon fàttaliku démb ngir mu mën noo jariñ suñu digg suñu borom mooy wóolu yàlla ak gëm ne yàlla mi ngi ci sa wet te fekk moom fokk mu may landam loolu nag yombul ci njàlbeen bi waaye pas-pas boobu dafa am solo nit da ko war a gëm gëm ne yàlla mi ngi ci wetam te nee na képp koo xam ne ci yoonam nga nekk dana la jàppale ba kenn du mën a kenn du kenn du la mën a bëmax nga daanu kon loolu defe naa ne bokk yi ndax pour ñu gëm loolu ndax jumaa ju mag ji taxaw nii di seere ne yàlla rek ay buur di wan ne nit yàlla nit ñi itam yàlla jaral leen lu nekk bañ def seen alal ba mel nii ndax bokk yi ndam lii lislaam am tey jii ci jumaa ju mel nii des na ko méngale ak naqar wi sëriñ bi amoon ak mer mi nga xam ne am na soppeem bu ñuy wax yëlli sëy amoon na ko ngir sëñ bi ba mu nekkee Gabon dafa amone ñaari dafa daf doon julli ci buntu neegam ba yag ñepp di fa jaar ñi di fa jaar ak seeni dal ñi di fa jaar ak seen lepp mu ne ngir warmal julli xaaral ma wut sama ñenti bant samp ko fi ba nga xamne kuy doxati do fi jaar mu daal di koy samp ñenti bant la de bokk yi mu samp ko ne da bëgg di julli ngir ñi nek ñi mu dekkal warmalal ko ko ba mu ko defee ka jiite quartier ba daal di mer ñëw sempi ko sànni yemul ci lolu waye daf ko wax ne ko fi l'islam amu fi gëm yàlla amu fi bokku yi tay li xew tay juma yi ak yu mel nonu ak taxaway bu mel nii defe naa weddi na ñeenti bant yoy tay bokki lol loolu pas-pas la bo xamne julli daf ko wara am ci bopam xamne lu mu def ngir yàlla yàlla mom dana nek ci wetam dana lako jàppale bu ñëpp yekku ndax sunu borom a wax neena won ñi gëm yàlla day dana len jàppale ba bañ bañ wutal leen ci àdduna ba ñu moom ko danaa leen bu ñu fekkee da leen dañoo nekkoon ci njàqare danaa leen tàggale njàqare danaa leen dëgëral seen diine defe naa tey lii ci dëgëral lii dëgëral diine la bokk bokk yi ñeenti bant ya kenn du ko méngaleeg jumaa ju nii ak yeneen jumaa yi ci des bokk yi yàlla moo waxoon ne ku nekk ci ku ragal yàlla na nga gëm ne mujj gi ci sa loxo lay nekk donte nit yi safaan yi mën nañoo koo jëkke it waaye mujj ga moom ci loxo ñi gëm yàlla te taxaw rek ñoo ci lay nekk ndax yàlla moom ndimbalam mi ngi koy amee képp koo xam ne sellal nga te def lu dëggu loolu mooy bind yi nga xam ne bëggoon naa ñu jariñoo ko ci xew-xew bi te bañ a rek dëkk ak di bernde waaye bu ñu noppee nag ñu laaj lan la mën a jariñ ñu war koo mën a yóbbuloo ci pas-pas yàlla yàlla dimbale nu àddina ak يلا يلا سخل نوتي أنجوب تتك نجسرات المستقيم يلا بني واتي سنس محمد صلى الله عليه وسلم يلا يلا آر تسمو خيط محمد صلى الله عليه وسلم أكفن من نك يلا دفل جامي أدنى جامي الآخرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فصل اللهم وسلم وبارك عليه وآله الطاهرين وصحابته الغر الميامين عباد الله اتقوه وأطيعوه واعلموا أن التقوى جماع كل خير وسياج من كل شر اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله الطيبين وارض عن الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم حط أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واعصمهم من الشرر واصرف لخيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسطو من البصر وارحم وبارك ثم عاف كلهم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 فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين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 السلام عليكم السلام عليكم.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 اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمحو بها كل ما صدر منا مما يخالف رضاك من وقت ولادتنا إلى وفاتنا وكفر عنا تبعاتنا وديوننا وكل ما وجب علينا لك أو لخلقك إجمالا وتفصيلا واكفنا بجائه فعل كل ما لا تحبه ولا ترضاه حتى نلقاك راضين مرضين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين